bismillahi irrahmani irrahim leylatu mawlidi nabi leylatu mahwi riyabi leylatu mahwi taabi wa tuhri di taassumi aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabi wa man wala asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi ñuy topp wala nga ñuy seetaan di leen siyaare bu baax di ndokkale ñépp ci weeru tedd bi nga xam ne ci la ñu tàbbi muy weeru gàmmu weer wi nga xam ne yoon bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ñëwoon ci jamono nekk weeru bari ay nganeel ndax feeñ gi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi feeñ na ci waaye nekk weer woo xam ne tam weer wu ñuy dundal la di ko ci fàttaliku di fàttaliku xewal gu rek nga xam ne doon na ko ci ñun xeet wi yëpp waaye di ci fàttaliku ak di ci nafaraat ay njàngaleem ngir di ko gën a mën a roy te xam ne roy googu rek moom la moom moo ñuy jariñ ci moom ndax moom la suñu borom waxoon ne nañ mooy wara nekk suñu royukaay wi gën ngir loolu nag ku ne xam na ne ku wax gàmmu xam ne sëriñ bi Cheikh Ahmadul Xadim lu mu fonkoon la lu mu daan dundalal boppam la lu daan defal boppam la waaye daan ko digle ci jamonoom digal tamit képp koo xam ne aju nga ci moom nga fonk ko ni nga xam nan la ko daan fonke ci biir loolu nag e, daayira muxaddamatul xidma ànd ak daayira torodu rayaxiin jot ndigal ci sëriñ bi ngir taxawaay boobu nga xam ne sëriñ bi amoon na ko ci gàmmu ñu di ko firndeel dolli ko ci firnde dolli ko ci yeneen eh, taxawaay yi nga xam ne mbooleem fu murid yi nekk ñu ngi ko fay taxawal di fa dundal gàmmu muy ci Touba ak ci ci Touba ak fu mbooleem fu mbooloo murid daje rek ku ne xam ne ñu ngi fay dundal gàmmu di ko fonk eh, waaye bi jumaay Touba ji nag sëñ bu jox ndigal daayira Muxaddamatul Xidma ak Rawdu Rayaahiin ñu taxawee tax ñu amee taxawaay boobu di ko dundal at mu nekk loolu nag moo tax ñu def jataay bi ngir di ko waajale eh, guddi googu Euh, seq ak jataay bi euh, suñu ñaari kilifa yi muy sëñ Mbacke Abdourahman nekk fi di borom xam-xam koo xam ne nekkatul ku ñu xamle ci Touba ak lu jëm ci xam-xam ak lu jëm ci diine ci dëkk bi nekk fi ci turu daayira Rawdu xiin sama yotu ndajoor sëñ Abdoul Ahad bu sa Cerno jiite. na saxaafi commission culturelle bi nga xam ne moo nekk ci daayira Muxaddamatul Xidma lépp lu jëm ci wàllu xam-xam tamit mu mu yor ko nga xam ne ni ma ko waxee sëñ Mbàkke rek jor noonu tul ku ñuy xam le ci lu jëm ci ak ci eh, ak ci wàllu daayira bi ñoom ñaa ñooñu lañ seqal jataay bi nar wax ci loo xam ne day aju ci gàmmu gi ni nga xam ne noonu lañ noonu la ñu koy dundale ngëneel yi nga xam ne moo ci nekk ak taxawaay yi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma ak Rawdu Rayaaxiin am nañ ko ci ak euh, ñi nga xam ne ñoo fiy ñëw di teewe jataay boobu guddi gàmm gi li nga xam noonu lañ sàkku ñu nekkee ko fi ngir njariñ yi nga xam ne moo nekk ci guddi gàmm ñu man cee taataan loo xam dana leen doy sëkk kon ngir bañ a gën a guddal euh, jataay bi dañ koy seq ak ñoom ñaar ñi suñu ñaari kilifa yi ñaari boom xam-xam yi ko defee kenn ku dañ la jox kàddu ci ay laaj yoo xam ne Euh, ñu ci dikkal xëy na day doonu lu tënku rek waaye waxtaan bi dëgg ak leer gi dëgg-dëgg mi ngi amee ci guddi gàmmu gi incha allah dañuy njëkk ci sëñ Mbàkke Abdu Rahmaan ginnaaw buñ ko nuyoo ziyaare bu baax a baax sakkoon rek ci moom mu dikkal ñu ci tënk ci ngëneel ak njariñ yi nga xam ne nekk na ci dundal guddi gàmmu ndax euh, euh, lu ñuy màggal lu nekk ku ne xam ne njariñ la ca nekk moo tax ginnaaw bu ndigal li weesoo ba noppi yaakaar naa jullit moom am neenut kon lépp lu muy def di ca sonn rek euh, am na lu mu cay sàkku ak lu mu cay séntu kon ku wax dundal guddi gàmm ak di ko màggal di ko fonk ku ne xam ne ni nga njëlee ci njëriñ a ngi ci njëriñ yooyu lan nga ñu ci mën a dikkal sëriñ bi loo xam ne ñi waajal gàmmu danañ ko mën a bàyyi xel boobu ñëwee ñu gën koo fonk ngir loolu nga xam ne moo cay nekk sëriñ bismillah bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina moolana muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain jërëjëf sëriñ imam maa nuyu di la ziar di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bu ñu siyaaree Cheikh Mouhamad Muntaxa ñaan ko suñu borom mbokki jullit yëpp ndokkee leen ci weeru tedd wi nga xam ne mooy weeru rabiul awwal di weeru mbaax di weeru mbégte di weeru xéewal ndax ci la yàlla feeñaloon sangu bindéef yi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy xéewal goo xam ne euh, ni ñu war a sant ci xéewal yëpp xéewal gi jiitu ndax mooy ndey xéewal yi ci moom la jaara yàlla jaarale yëpp te xéewal sant ko daa war muy xew-xew bu rëy boo xam ne moom ci boppam sallallahu alayhi wa moo moo njëkk bàyyi xel xéewal gi ndax sax na ne daan na woor altine te bañ koo laajee lu tax daana wax ne ci laa gane àdduna kon moom mu ngi doon bàyyi xel bis bi bu ko yàlla dafay xéewal muy sant ci xéewal boobu li mu koy sant nag mooy jaamu yàlla loolu tax nag euh, sëriñ bi fonkoon lool gàmm daan ko defal boppam daan ci wane mbégte mag ngi dañuy wax ne mbégam ku bëgg gis mbégam mu lànd rek négal ba gàmm nga ñëw xéewal yi mu daan joxe waxtu wu am bu gàmmu dikkee da yokku kon bis bu fonkoon la ndax lan li ci nekk ci ay xéewal li ci nekk ci ay njariñ li ci nekk ci aw yiw li ci jiitu mooy ku yàlla gënal euh, jiital ko nga bég ca loolu rek aw yiw la du ñëpp ko man te yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam yàllaa ko gënal yàllaa ko jiital kon lépp lu ko laal moo gën lu ko laal bis bi mu feeñ jamono moo gën ci moo gën bis yi mu feeñu weer bi mu feeñ moo gën weer bi mu feeñu loolu tax sëriñ bi fonkoon guddi digg lool bi mu fi nekkee ki kilifaam daan ànd ak di ko def waaye bi nga xamee ne nag dem ay kilifaam bàyyi nañ ko fi dem ci la tàmbal nag di ko dundal ci anam gu gën a jéggi dayoo yooyu mu wax ne ahyaytu mawlidan bi min ashasi te lu jiitu loo waxoon na ne tanzimuhu yanxatimu ala dawi taqaddumi ne ku jiite mbooloo ku ne war ngaa woote gàmmu bu bis bi dikkee nga fàttali nit ñi yonent bi sallallahu alayhi gën leen cee naq gën leen koo xamem loo gën leen ko bëgg loo moo tax yiwu ci nekk nag mën nañoo wax ne bari nañ waaye sëriñ bi tënk na ko ci ñaari bayit mën nañoo wax loo xam ne tudd na ci fukki mbir yoo xam ne ay xéewal la wala ay yiw la yoo xam ne euh, dundal guddi gane àdduna yu dana ko jur ci waxee ne laylatu mawlid nabi laylatu mahwi riya bi hmm. nee guddi la goo xam ne dañ ciy fare ay sikk hmm. kon nit ki bu ay sikk sikk ay yudul noonu newoon ci xolom hmm. mu fonk gam mën naa day tàggoog kon day saafara jàngoroy xol laylatu mahwi temps bi guddi la goo xam ne nee dañ ci fari coono coono yu amul njariñ fonk guddi gi dana tax nga tàggoog moom dana la baaxee ba bu loo yëngooti lu baax lay doon ay njariñ nga ci jële wa tuhri di taathumi nee na guddig laab ci bàkkaar la guddi li goo xam ne nii ak guddig laab la ñeel boroomi bàkkaar ku yàlla na tooy bàkkaar nee na boo fonkee guddi gi yàlla mën na laa tàggale bàkkaar yooyu bi xan najaatu wal falaax guddi la goo xam ne ak mucc a ngi ci guddi la goo xam ne texee ngi ci dana jural nit ki ak mucc mucc nag bu ñu ko waxee mooy mucc ci luy lore mucc ci lu lu baaxut fii ci àddina ak àllaaxira waaye dana ci jural nit ki texe bu dund àdduna ci texe bu faatoo texe waaye guddi mbégte la guddig pajuk aajo la maa na jaa nee na ak tono woo nga ci it nag képp ku koy def jox ko ak xam fonk da nga yëg ak yokk koo xam ne danga xam ne eh, jar na ko guddig baax la day tax a baax ndax ku fonk ku baax di ko xeñtu mbooram bu la ko rek mbaax nga yóbbu dara nga gën a baax bi baax wa salaa mm-hmm. waaye nag guddi la goo xam ne dañ cee tàggoo ki mbugal mm-hmm. ko jox àqam euh, dana tax lépp luy sabab mbugalum tey ak wëllëgee yàlla tàgg la kon mm-hmm. nañoo wax ne xéewal yi jàmm bi soxla fii ak mu soxla ko fonk guddi gii ko maye koy fonke nag sëriñ bi wax na ko tanzimu hubbi sunnati nañ ko màggale dundal ci sunna dañ ko màggalee dundal ci sunna bu dikkee sunna mooy salatu ala nabi sunna la tagg yonent bi sallallahu alayhi sunna la jàngat siiraam jàngale ko sunna la jox nit ñi ay xéewal naq leen ci lu baax sunna la kon ku ko màggal ci yooyu nee loolu yàqu na li jannati danañu may boo léegi itam ba àjjana biis diyaadul minnati dolli ku xéewal a ngi kiit nag ku koy def da nga yokk waaye nag ci sart li muxlisin muazimi bàyyi xel baax loolu kon ki nga xam ne li muy def ak ixlaas ko lal bu mu ci rax njistal bu mu ci rax nii laa toll bu mu bëgg ñu ñu na na yàlla rek tax te it na màggal guddi gi ko tax a jóg guddi gi nga xam ne yow xam ne guddi gi màgg na ndax ki ki ci feeñoon moo màgg nga yëg loolu ci sa xol wala xol a koy def màggal googu boo ci jëm si bàyyi ko xel baax a baax ci anam yëpp waaye nag li nga ci def lépp nag la yàlla rek tax bu ci séentu leneen sëriñ bi nee na ku def loolu da nga say xéwal dana dolliku te it dana la womat boo liggéey tàbbal aljanna ndax bëgg ku baax mhm. da lay jur ñu yéegale ci moom mhm. gis nga kooku ñëwoon ci yentu asalaam ne ko man dama bëgg ba uma sago mhm. su ma toogee gisuma la damay damay wéet faw ma ñëw ba gis la ci xam naa ne bu ma faatoo man bu wóorum ba xam naa dem àjjana am déet te su ma demoon àjjana it fa ngay nekk duma fa mën agsi loolu rek ma metti ci la ko waxee ne ko al maru maa man ahab doomu aadama ku mu bëgg yàlla la koy boole mu boole liggéey kon bichaaraa ngi ci tabshir ngi ci bu rëy rëy al man ahab waaye na xuppee ngi ci de ku bëgg lu bëggu xentu mbooram kooka firndeel mbëggeel ga bu ëllëgee bu say jëf mun mën laa yóbbu foofu it yàlla ci maa xam mu mu yéege la mm-hmm. Mm-hmm. da koy dugal ci walladiina aamanu wa tabaatuhum zurriyyatuhum bi imaanin alhaqnaa bihim zurriyyatahum waaye nag ku bëgg loo mun loo mun topp ko it nag. Mm-hmm. def ko sa fam sa te amul njëriñ it almaru maa mm-hmm. mën a xam. sëñ bi am mm-hmm. euh, leer na lool xam na liñ ciy déggee rek ci tenk mooy wane ne nit ki li mu bëgg ci àdduna ak ci ëllëg yowmal xiyaam te mënu koo ñàkk muy. lii tax mën a nekk fii ci àdduna cig mucc soxla ko ci mucc soxla ko ci xéewal soxla ko ci ko mën na ko amee ci dundal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la nga xam ne moom rek am njëriñ ëllëg muy texee tamit mi ngi nekk guddi dundal guddi yonent bi sallallahu alayhi kon euh, ngëneel la loo xam ne ak yiw la woo xam ne mën nañ ne euh, kuy dund ku nekk soxla nga ko fii waaye la nga mënta ñàkk fële tamit euh, nekk na ci kon occasion la boo xam ne bu ku nekk war a jël la ngir mën cee làqe ñaar yiw yooyu yëpp yaa ngi ko léegi ci sëriñ bi ni nga xam noonu la fonki guddi gàmm ak ni nga xam noonu la ko euh, yàggee taxawee ci teewaayu ay kilifaam ak ci seen ginnaaw ni nga xam noonu la ko jëlale boppam di ko dundal ak anam goo xam daan na ko defee noonu loolu ci lañ ñëw sëñ Abdou laat mu dellu sil ñu ci tënk ci sëriñ bi ni mu fonke woon gàmm xëy na waaye na nag ni nga xam noonu la ko daan dundale euh, ci histoire li nga xam ne mag ñi nettal nañ ko ci teemu agsi ci ñun sëñ bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala asrafi almursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmahin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ngi nuyu mbokk yi ci teew ci jotaay bi eh, te di leen siyaaro bu baax a baax te di leen ndokkeel di nuyu tamit mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ci Zen Zen MKTV wala GMT ak eh, télévision yi nga xam ne ñoom lañu lëkkalool ñëpp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha te di ko ndokkeel di ndokkeel jullit yépp ci weeru tedd bi nga xam ne moom lañ nekk muy weeru yonente bi sallallahu alayhi wa di am mbégte bu baaxit ci jotaay bi nga xam ne ñu ngi koy def ngir gàttandoo ko bis bu tedd bi ànd ci ak euh, Serigne Bakke Abdourahman di borom xam-xam bu mag di imaam doon koo xam ne dañ koy bége lool ci labiré gi mi labiré bokki jullit yi ci xam-xamam euh, sëriñ imaam ñi ngi lay delloo nuyoo tamit euh, di ñëw ci laaj bi nga xam ne moom nga laaj li nga xam ne loolu la sëriñ Mbàkke wax ci dundal guddi gàmm ni mu amee njariñ ak euh, njariñ li nga xam ne am na ko ci réew yi ak ci gox yi wala ci waaye ci nit ki ci boppam loolu jàpp naa ne moo tax sëriñ bi nga xam ne léppam njariñ la te njariñul mbindeef fii rek moo ko taxoon a jóg kon su fekkee eh, lu mel nii am na ak xam gim xam yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak ni muy dàkki mbégam ak ni mu ko xamee tax na moom mu bokk ci ñi nga xam ne eh, fonkoon nañ duddal eh, guddi yonente bi lool sallallahu alayhi wasallam te teel koo def léeg-léeg dañ koy faral di wax bu ñuy nettali Eh, histoire gàmmu ci Sénégal di dégg yenn date yi ñuy wax boo dee xool méngale ko ak date bi nga xam ne sëriñ bi bind na ne euh, dundal na ci guddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ne yàgg na lool lool lool ndax li mu wax ahyaytu mawlidan nabi min asasi wa waxaadal yi fawqal muna fi hamzazi loolu bind na ko kon bu ñu dee xool date boobu di assasi daanaka jamono yi mi doo ko sos yoonu murit rek lay doon wala yooyu kon loolu yàgg na eh, loolu nag mosu koo bàyyi dundal guddi yore tëb di ko defal boppam sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee Mbàkke bi mu sañcee Daaru Salaam ba xam ngeen ne juróom-ñaari at yi nga xam ne am na ko Tuuba eh, doon na fi gàmmoo am nay xaside yoo xam ne xaside gàmmu lañ koy tuddee yoo xam ne daanaka gàmm gu jot daf ko daa génneel xasida gu bees xasida yi ngeen gis lu mel ne rahiya miimiya Ahmed Souleymane ak euh, lu mel ne ay xattabaak yépp yëpp daana ko taalifal mag ñi ñu di ci gàmm fii ci tuuba bu njëkk sax bu ñu daa gàmm fii daanañ barkeelu ci xasida yooyu ni ko noonu tamit bim bi mu demee ci géej gi ba ñibbisi it xam ngeen ne ci Daaru Marnaan wax na ne gàmm na fi gàmm gu rëy gu xumb dem Murtani ñëwaat ba Ceyeen gëstu bi nga xam ne nag ci lañuy sukkandiku ngir mën a xam ni sëriñ bi daa gàmmoo gàmm googu Ceyeen la woon euh, xam ngeen ne bi mu ba njaareem tamit daan na fi gàmmu gàmm yu rëy rëy yoo xam ne jéggi woon na dayoo ci wàllu mbooloo ak wàllu bernde euh, ni nga ko waxee léegi daaira muxaddamatul xidma ànd ko ak daairatu rawdu rayaxiin Euh, dundal guddi gàmmu yàgg nañ koo def fii te amoon ndigal li ci ndigalul ci jamonoy Serigne Saliou Mbacké nga xam ne yàgg nañ ko dundal fii te loolu jàpp naa ne ci jamono yi daayira bi doo ko sosu rek la ci 94 jëm 95. bi ñëwee ba jamonoy Serigne Sidi Mokhtar nag la Serigne Sidi Mokhtar jox ndigal daayira Rawdu Rayaahiin ak Muxaddamatul Xidma ne nañ koy ànd te gën koo fonk di ko jëmmal tamit fii ci jumaa ji ci barab bi muy loo xam ne. jàpp naa ne euh, lu am solo la gis-gis bu am solo la ndax xam ngeen ne gàmmu niñ koy dundale ci Touba ak ni ni nit ñi di wuysee ak nit ñi dunde ni ruu yi di dunde euh, jàpp naa ne gën a jëmmal googu moo ko waral tax na nag segam barab bii barab la boo xam ne dañ fiy royee lu baax te lu fi waay gis daf koy jël di ko yóbbu ci barab yeneen yi nga xam ne barab sëriñ bi lañu barabi yi lislaam euh, ci biir réew mi ak ci àddina bi fu nekk barki démb rek am na ñoo xam ne dañoo war a gàmmu Canada euh, ci kër sëriñ Touba yi nekk foofu Serigne Mbacke Abdourahmane mii boo am mbokk moo xam ne boole na kook man ngir ñu doon gëstu ni ñuy war a dundale guddi gàmmu gu fii kon loolu tax na kon euh, sagam fii dañ fi royee lu baax war nañoo mën a gëstu bu baax a baax ba xam sëriñ bi ni mu ko daa dundale ñu ñu ñu du ko dundale noonu te jàpp nañ ne sëriñ bi ni ni ni muy dundale guddi gàmm loola mooy li gën ndax xam naa ne kenn gënu koo xam nan la ñuy dàkki mbégum yonente bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom mooy li ma wóor mhm. sëriñ bi moom kenn gënu koo xam ni ñuy dàkke mbégum yonente bi kon nim nim ni mu ko doon defe te wax ne noona la jàpp naa ne noona la mooy moom mooy mooy gën kon kuy ab taalibe kon amul droit ci eh, ñàkk a roy noona taxal nag gëstu bi nga xam ne doon nañ ko def te sukkandiku ko ci nettali boo xam ne sëriñ moo Modou bu Bousso moom sëriñ Massamba Fati moo ko nettali ci wax ne eh, jóge na fii ci Darul Alimul Xadi Xabiir wet gi fii ñu dëkkoon ci côté Assar noonu eh, àndoon ak waajuram sëñ Masamba Faati moom sëriñ bu soobee mu bokkoon ci mag ñi taqoog sëriñ bi lool demoon siyaara ji sëriñ bi téyeen sëriñ bi téye leen fa nga xam ne safar fal leen fekk ba weeru gàmmu fekk leen fa ñu mu wax ne nag ni mu gisoon sëriñ bi doon dundale guddi gàmmu taxoon na moom mu jëloon loolu moom sëriñ Modou bu Bousso daa ko dundale noonu daa ko jiite ci gere diir bu yàgg yàgg yàgg nga xam ne ba léegi kaset yi nga xam ne moom la daa gàmmoo yëpp ñu ngi fi. wax nañ ne bi nga xamee ne ñëw na ba gàmmu jot sëriñ bi santaane na euh, ngir ñu tàmbali dundal guddi gi waaye tàmbali waajal gàmm gi ci alquranul karim ci fukki kaamil ak ñaar. biñ demee ba nga xam ne nag bisu gàmm gi ñëw na mu santaane ci guddi gi ñu wut ay jàngkat yoo xam ne eh, ay kuréel lay doon maanaa maanaa ay jàngkat lay doon yoo xam ne eh, day wut koo xam ne barsan lay jàng al barsan jiyu loolu tamit ñu gëstu barsan bi nga xam ne jàpp nañ ne méngoo na ak bi ñu xoolee bi waa Gede doon jàngee gëstu waa Mbàkke xewar ak yooyu yëpp ñu méngale ko tamit ak bi nga xam ne bi lañ am jàpp nañ ne bii digg doomu na te niroo na jàpp nañ ne dana dana jege bi nga xam ne jàpp nañ ne moom la sëriñ bi daa gàmmoo ndax barsan bi mag ñi bind moom lañ ñoo lañ ko méngaleel nga xam ne kii tàmbali day jàng buntu barsan jiyu ba agsi ci allahuma sal eh, eh, atri allahuma xabrahul karim bi harfin sasiyin min salatin wa taslim su fa baamu ko fukki yoon ak ñaar eh, loolu day tombe tamit ak guddik fukk ak ñaar ginnaaw buñ ko buñ ko ubbee fukki kaamil ak ñaar su noppee wax allahuma salli wa sallim wa barik alayhi fukki yoon ak ñaar loolu nag su koy wax mbooloo mi nga xam ne ay góor lañ te seen kàddu ba ñu mu jóg ca kaw ñoom dañuy bëgg ñu aw ñuy awwaale loolu ca kaw bu dee jigéen ñi mën nañ koo wax ndànk waaye dañuy bëgg suñ jàngee buntu barsan bàgg foofu bu ñuy wax atrillahuma xabrahul karim bi harfin sasin wa min salatin wa taslim ñu aw ko ca kaw bu ñu waxee allahuma salli wa sallim wa barik tamit kii dëbbi bu ko waxee mbooloo mi it aw ca kaw suñ suñ suñ daaneelee ci loolu kuréelu jës bu jël jàng fukki bayit ak ñaar ci njàngum cosaan mi nga xam ne moom lañ xam daaji waa kër si Masamba yi ak yi ci aju suñ noppee waa mooy bu jël joom jàng fukki bayit ak ñaar suñ noppee waa muqaddimaat jël jàng fukki bayit ak ñaar nga xam ne loolu nattale nañ bunti barsan yi ak xaside yi ba nga xam ne suñ tàmbalee njàng mi comme programme bi ñu koy tëral ginnaaw waxtaan suñ ko tàmbalee wi suñ demee ba fajar jot euh, xasida ak mu xàddamaat moo ci gën a gudd euh, buy jeex day jeexandoo ak barsan buntu ñaan bi day daal di ñëw noonu noonu noonu lañ koy doxale ci biir loolu nag boo xoolee ci bunt yi niñ ko tollale ni ko sëriñ bi waxee léegi daanaka buntu barsan boo tollu dafay xaw a niroo sax ak ni sëriñ bi di di di di di nettale histoire yonente bi ci jës bu bu tolloo ci xar baax yi da ngay gis ne wala ci waajtaay yu ñëw sëriñ bi ñëw yonente bi sallallahu alayhi boo xoolee tamit mooy bu nga xam ne waxin yi wuute na waaye day mel ne dañuy méngoo nga xam ne que loolu day day ni ko sëriñ bi ràbbalee euh, ak ni ko ni mu ko defee da xam ne nu neex la ci xol noo xam ne ni muy dundalee roo maanaam ak ni mel yéeme na lool loolu da ngay da day misaal ci li may wax ne sëñ bi xam na ni ñuy dàkkee mbégum yonent bi sallallahu alayhi ci biir loolu ci defeen wi tamit yonent bi sallallahu alayhi wasallam buy waajee ñëw di gane si àddina borom barsan daf koy kañ di ko di ko jottali ay nuyoo nuyoo yooyu nag nga xam ne day mel ne yonent bi mi ngi ñëw Euh, loolu it dañu bëgg ñëpp jóg mbooloo mépp jóg ngir màggal yonente bi sallallahu alayhi ci ak feeñam nga xam ne mooy li xettali mbindeef yi ni ko sëñ bi waxee léegi laylatu mawlidi nabi laylatu mahwirriya bi loolu nag assalaamu alayka yooyu nga xam ne borom barsan da ciy bàkk yonente bi di ko nuyu dañu bëgg mbooloo mépp jóg taxaw taxawandoo ngir màggal yonente bi sallallahu alayhi te bu ñu wax bu kii dëbbee waxee assalaamu alayka ya rasulallah mbooloo mépp wax sallallahu alayhi wa sallam ba ba bunt boobu jeex takk ñu doog a àndandoowaat toog doog a wëyal barsan bi bàgg ci atri lahuma yi baa ko wax allahuma salli baa ko niñ niñ ko waxee noonu lañ koy lañ lañ koy fanaane ba bët set ci biir loolu nag muy ànd ak yoo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko daa defal boppam mooy di berndeel ñiy jàng ak mbooloo mi teewe gàmm gi di leen berndeel sëñ Modou Khari nettali na ne sëriñ bi daana indi ay berne di ko xëpp ñuy jàng di leen ko joxal boppam am na nee na am na benn benn kii boo xam ne moom ci boppam moo demal boppam ca fuur ba euh, sarse ak sendal li ñuy wax sendal mag ñi xam nañ ko mooy ak bagaan gu rëy goo xam ne da cee def ba mu fees dell ak ay jëfandikukaay ay mburu ak ay gato ak yu ni demee di ko di ko cakk-cakkee daanaka attanu ko attanu ko sax moom ci boppam def tànku neen di ko indi nanguwul sax ko ko ci jàppale di ko xëpp ñi nga xam ne ñooy jàng kon euh, loolu day wane ne sëriñ bi booba xam naa nekk na ci àll te it euh, fonk na li muy deflu kon tamit ci biir loolu yit képp kuy dundal guddi gàmmu nga boole ko ak ay bernde ak i naan yu wuute euh, ak ay ay kii am na ci solo sëriñ bi daana ko def beneen bi it xet gu neex sëñ bi ci boppam moo daa jël loj ko lañ tamit di ko pomp ñi nga xam ne ñooy ñooy jàng di leen ko sotti moom sëñ Mourou Khary nettali na laj ko lañ ji ci sëñ bi doon sotti sotti na ko ci mbubbam mbubb moom nga xam ne moom la soloon di ba ñuy ba ñuy gàmmu am naag moom lu man ñaar fukki at ak nangam xetuk laj ko lañ gi dañut ba ni mbubb mi xare kon loolu day wane ne kon kuy dundal guddi gi it na wut laj ko lañ yi gën a baax yi gën a foor di ko di ko sotti ndax foofu yaakaar naa wax nañ ne euh, malayka yi nga xam ne mu ñooy malayka yërmande yi suñuy màggal guddi yonent bi ñoom ñëpp dañuy teew ngir di di di di di di di màggal di ànd ci dundal gi ñoom it ko te ñoom xet gu neex dañ koy bëgg te it képp gépp jaamu rek dañuy bëgg mu ànd ak cuuraay ak parfum ak yu demee noonu loolu it xëy na sëriñ bi it màggal yonent bi sallallahu moo tax daa ko def kon soo xoolee daal ci méthode boobu lañ koy dundalee ba bët set euh, noonu noonu lañ koy dundalee am ci loo xam tamit sëriñ bi bind na ko ba noppi daa ko def sëñ bi doon na ko wax léegi muy wa in ala ma in quri mawlidi mawlidi xayril basari fa surb bil mutaxari yëkku fu kaydal marxami loolu tamit day occasion ci képp koo xam ne danga nga amuk jaaxle ci sa wéradi wala nga amuk jaaxale ci looy sàkku wala nga bëgg loo xam ne day defar sa xol nee nañ bu fekkee euh, sëñ bi daana jëllu ndox ñu taaj ko ci kanam ñiy jàng euh, suñ noppee ñu tifli ci ñu wax euh, ñu wax ne ndox mu am solo ngi noonu moo xam ne yu nawirul xalba sharab min salikal ma bil mujab wal xalba yuhyi duuna ab wa an saqa in yaxtami kon loolu tamit kuy dundal guddi gàmm nga bàyyi ko xel ndox mu am am solo moo xam noonu euh, lu ne mën na koo saafara te it mën naa saafara ay jàngoro mën naa faj aajo yi euh, dafuwal jal bi dal la loolu it ñu bàyyi ko xel ci kuy dundal guddi gi nga defale ko kon su ma dee tënk daal ci ni sëriñ bi daa dundalee guddi gi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci tënk noonu la kon képp ku bëgg a royee noonu mooy yoon wi nga xam ne mooy wi gënal sëriñ bi nga fas ko yéene roy kon xam naa ñu ngi taxaw la foofu sëriñ imam euh, ba nga dellusiwaat ci kàddu gi. jërëjëf suñu bulaat euh, am na solo lool te leer na te ko dégg xam ne histoire la boo xam ne bu mat a bàyyi xel la bu mat a jàpp la ndax euh, nit lu muy def lu nekk delloo ko cosaan la am man koo layal da ci am solo lool te murit moom. amul royuwaay bu gën a kawe lu jug bàyyi ko ci sëriñ bi loo xam ne lu wér la kon defin woowu am solo la yaakaar naa li sëñ Mbàkke doon junj sànq wax temps yi moo bi sunnati googu sëñ bi waxoon mooy jàpp na lii kon sunna la soo xam ne sunnas gàmm la ñi yoo xam ne eh, dafa bàyyi ko ci sëriñ bi muy defin woo xam defin bu mucc ayib la wu sell woo xam ne day li ci gën a am solo mooy yàllaa gi mi yàllaa mm-hmm. eh, dama jëlale ña ko àndoon ak sëñ bi waaye ñi nga xam dañ koy dañuy fekk jataay boo xam noonu lañ koy dundal rek nañ koy yëgee ak nañ koy nañ koy teewloo day wuuteeg nga defee ko beneen anam kon loolu yaakaar na naa sunna su am solo la soo xam ne ku nekk war na ko bàyyi xel te sellal ko ñu doon wax sànq ci gàmmu ak ak ak ngëneel yi ak euh, fàttaliku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ku wax gàmmu tamit sëñ Abdou leeral na anam gi sëñ bi daan defee njàng meeg li ci aju waaye wax gàmmu tamit wax fàttaliku yoonte bi ak ay jaar-jaaram ak bind yoo xam des na ko ci mën a jëlee ba tax nag euh, gàmm gi ñuy def fii ci jumaa ji waxtu wu nekk at mu jot day ànd ak lu mel noonu ab leeral gaaral goo xam day dañ ciy fàttaliku lenn ci bind ay bind ci lenn ci dund Yonent bi sallallaahu alayhi wa loo xam ne ñi fi teew nañ ko mën a yóbbaal yóbbaloo euh, lu jiitu ñu yëggu ci njàng mi ak ak ak lu ci aju kon tamit euh, sëriñ bi sëñ Mbàkke mm-hmm. ci lu gàtt rek loo ñu mën a dellusi ci loo xam ne luñ mën a jàngee ci ay bind yu mën a jële ci dundu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam loo xam ne saa yu ñuy gàmm rek suñu xel war na cay war na cay dem ba ki gàmm si weesoo dundal ki anam bi ñu koy defee ak lépp ay bind yoo xam dana ko mën a jëlaale ci dundu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko yóbbaloo di ko fàttaliku eh, diirub dundam. Euh, jërëjëf sëriñ Imaam euh, jërëjëf sëriñ Abdou Lahad am na solo lool leeral yooyu yoo xam ne jàpp naa ne mbokk yi am yéene gàmm yëpp euh, bàyyi xel li mu doon leeral am na solo. sëriñ bi moom lammutuwu dara la muy def rek ci teguwaay la koy teg mm-hmm. yonentu nag sallallahu alayhi wa sallam borom daa waxoon ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana mm-hmm. moom mooy royukaay bu mm-hmm. ci moom lañuy ñuy jàngee lépp moo tax ak dundam bi dara lëndu ci lépp mu fees moo tax bu ñuy gàmm it xasida yi ñuy jàng ak barsen ba yëpp dañuy wan ku doon yonent bi nu mu meloon ak lu mu doon def moo tax ci ndigal liñ am it at mu jot danañ bàyyi loo xel jël ab benn bindu. mu gàtt gàtt. ngir ñu xam ne kii ñuy fa fàttaliku di bëgg ci moom kat ku ñuy roy la. ci wet yëpp nag. boroom kër ci biir këram. njiitul réew. ilimaan ci jàkk. ku jiiteb xare. ku yëngutu yaxantu ci jaba. ñëpp seen royukaay nit ci biir njabootam seen royukaay tax it mbooloo mi. at mu jot dañ tànn ab tomb ren ñu ngi tànn ni saxaaba yi doon fi ko yi tegoon ak ni ñoo jëflante hmm. muy bind bu ñu war a jële kon ni yonent yàlla Muhammad alayhi salaam meloon saxaaba yi ñëw na ci ronam muy muy seen kilifa hmm. fañ ko tegoon ak nañ ko doon bàyyi xel nañ ko wóoloo woon nañ doon topp ay ndigalam hmm. ñu war caa jàng yi ne képp ku njilifit te sa kilifa di mat kilifa nga roy saxaaba yi rawatina yoonu murid yi nga xam ne Mawlana Cheikh Ahmadou Khadim dañoo waxoon ni saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine mm-hmm. ñooy seen bàyyi ci diine mooy kon nañ meloon ci yonent bi mm-hmm. nañ roy ñooy ñuy tam mm-hmm. fonk seen kilifa teg ko ca kaw jox ko war ma di gën a mat waaye ay ndigalam duñ ko jaawale dara moo tax it bind yi joxe mat bàyyi xel lool bind yu am solo la ci kenn ku ne xam ne dañu dañ ñëw indil yonent bi ngir mu nekk modèle sallallahu alayhi wa sallam ci lépp looy dund royukaay la ca ak ndawam royukaay la ci woon ci ndaw ñi bi mu sampee kër royukaay la ci woon ñu samp kër ñëpp bi mu nee ba jiite mbooloo mi royukaay la ci jiit li kon royukaay la ci lépp loolu nag waxtu wu ne ñu tibb ci dara fàttaliku nit ñi ngir bëgg nag ku ñëw jël loola boo léegi nga jël leneen waxtaan nañ fi waxtaan yu bari ci digg mag euh, waa këram mu doon dund ci biir këram waxtaan nañ fi ni mu doon dundee ki saxaaba yi moom waxtaan nañ fi ni mu doon dundeeg ñi bokkut ak moom jëm jëm waay mm-hmm. kon kon loolu lépp nag ngir joxe ay bind la mm-hmm. kon sëñ imam jàpp naa ne ñun mm-hmm. kuy ñëw ku ne war ngaa sóor ne daal jataay bi ma teew lépp luñ fi wax naa ko bàyyi xel xam ne man lay wax man la ñuy wax bu sëriñ bi dañuy wax ni sallallahu alayhi wa sallam meloon nit ñi xamal nañu mel noonu melokaan wi gën ku ci mënta àggit jéem ko lu mu wax ne sori woon na ko gëmmal da ko war a sori ndax du lu baax mm-hmm. loolu jàpp naa ne bu ñu ko dee teewlu mm-hmm. ànd ak nag li mu wax li sëñ Abdoulaye wax léegi gàmmu dañoo bëgg ñëpp di gàmm waaye mm-hmm. bëgguñ ko ñëw di seetaan si gàmm ñëpp di gàmm mooy lan di déglu bu njàng mi déglu waare yi bu ñuy jullu ci yonent bi nga ànd ak moom di jullu ci yonent bi ndax li gën ci lu ñuy def ci guddi gi bokk na ci julli ci moom ndax ndigalu yàlla inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima loolu digul suñu borom kon moo tax noonu ñu koy defee bu buñ koy kañ ak a bàkk ñëpp àndandoo ko loolu ku ñëw na bàyyi xel na ci nga bokk ñëw rek dina bay seetaan si bokk ci gàmmu gi buñ xëyee nga yëg ne ruuxaanee gi gi gi gi gi gi giñ ci soxla yow dugg na la mm-hmm. loolu ñu ñu koy fonk ñëpp di ko dund dañuy yëg ne buñ xëyee mm-hmm. dañu yëg ak ak yees la ñuy yëgal seen bopp loolu lu mat a bàyyi xel la sëñ imam jàpp naa ne euh, seetl gi mu àndal fii ci barab bi ñenn ñu ne ne ne daf la war a def loolu it lu mat a roy naa ne képp ku ku ku fas yéene gàmmu jël bindu nii ko sëriñ bi diglee te ñaari mbooloo yi di ko def foog naa ne am na solo lool lool ci wet yëpp nag ñi ñi dal gi ñi dal mm-hmm. tekkeeral ji waaye teewlu gi mm-hmm. ndax nit dana teew ci barab te teew teewul fii dañuy bëgg ko teew teew nga xam ne li ñu fi jàll lépp da nga yëg ne yow mii lañuy ñuy waxal mm-hmm. nga nga bàyyi ko xel mm-hmm. loolu jàpp naa ne sëñ imam mm-hmm. lu mat a bàyyi xel ci kii bi bind bu rëy la boo xam ne boo fa jógee da yëg yokk ci sa bopp goo xam ne da xam ne jërëjëf euh, sëriñ bi euh, tënku na waaye am solo lool euh, buñ delloo ci waxi sëriñ bi rek ni mu waxee noonu la doon liggéeyal yonte bi sallallahu alayhi wa salaatu sitta bi madhi sitta taati ba tama tisaay daanaka mën nañoo wax ne bu ñu résumé kàddu yi si ñëpp lan njëkkoon wax léegi ak kàddu yi nga ci teg léegi ci euh, li ñu war a jàng ci guddi gi ak dundal gi mën naa dellu dellu boole ñaar yooyu yëpp. ñu defeen wi sell ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak di julli ci moom ak booleeg nag di jël bind ci moom di ko roy loolu rek mooy lu am solo loo xam ne euh, gàmmu féete ko kaw. Euh, ni nga ko waxee sànq ci barab bi bi ñu koy dundale muy jumaa ji te ñu am ci ndigal ci sëriñ bi euh, daayira mu xadamat xëy maag rawdu rayaahin di ko ànd ku ne xam ne ne am na taxawaay bu ràññeeku boo xam ne mi ngi ciy am ci biir jumaa ji ci organisation boo xam ne bu am solo la ci mbooloo moo xam ne mu takku la moo xam ne boo boo fi ñëwee guddi gàmm waxtu gàmm doo ko xàmmee ak màggal Tuubaa wala sax mën nga ne moo koy gën a moo koy gën a xumb ndax mbooloo mu bari waaye lépp ànd akuk dal lépp ànd akuk teewlu loolu na ku ne xam ne liggéey bu kawe la laaj kon ñu jox suñu abdulaat kàddu gi rek mu dellu suñu ci naka la daayira bi Muxaddamatul Xidma ak Rawdu Rayaahin di dundale gàmm fii ci jumaa ci ndigalul sëriñ bi ak tamit euh, xëy na mën nga ci njàmbaasaale ñi nga xam ne ñooy ñëw di gàmm si euh, lan lañ soxla ci ñoom ci comportement melokaan woo xam ne dana méngoog barab bi ngir ñu di ko bàyyi. Euh, <coughs> jërëjëf sëriñ Imaam jërëjëf sëriñ Mbacke Abdourahmane Euh, laaj bi nga laaj am na solo mooy naka lañ koy dundale fii nag ginnaaw bu ñu xamee ni ko sëriñ bi daa dundale mooy noonu rek lañ koy dundale fii ci jumaa ji kon kuy ñëw ku nekk sëriñ Mbàkke wax dafa am solo mooy indaale ndab lu sell te fas yéene bañ a def loo xam ne day karajal sa ndab ndax dana tax boo koy jëfandikoo jëfandikoo yi mën naa bañ a neex loolu nag mooy li sëñ Saaliwu digle woon ne euh, suñ Tuubaa li mu wax ne tax simuhu bi sunnati euh, sunna moom mooy aw yoon rek yoon woo xam ne wu ñuy roy lawul lu baax euh, rawatina li sëriñ bi ubbee léegi ci njariñ li nekk ci dundal guddi gàmm nga xam ne fa ma yoxsim mawlida nabiyuna babil huda fala yuhazabu qada loolu mucc ci mbugal rek ëllëg jar na kon nga ñëw ngir teewlu fa kullu man xat xadara mawlida euh, sayidal wara tabarukan fa sayara naw mu bil fatxami bu ma juumul ci ci bayt bi waaye eh, am na fu mu waxee tamit ne fa innahu kaman xadar yawma unaynin wa sabar wa ma badrin wa nasar loolu tamit xam nga ne loolu tiyaaba ji kon rëy na lool lool kon kuy ñëw war ngaa fexe ba sellal sa jëf xam barab bi nga jëm ngir ñëwaale yit ak sell ñëwaale ak sell te boo ñëwee nga moytu jaxasoo góor ak jigéen moytoo coow fas yéene daal doo def lenn lu dul lu jëm ci luy dundal guddi gi ni ko noonu tamit nga fexe ba sa sa sa ñaq wala sa alal dem ci eh, fu ñuy dundalee guddi yonent bi loolu lu am solo ndax tiyaaba ji rëy na te sëriñ bi digle diggee na ci lu rëy fa kullu man anfaqa fi maw eh, mawlidihi l musarrafi maalan bi xayri sarafi walaw bi xadri dirhami loolu loolu ci la tegaat ba yu ma wax léegi mel na ne teewe nga xare badar ak xare Unayni ba pare nga bokk ci ñi ci kon loolu lu am am solo loo xam ne kon nit ki war naa fexe ba lu néew néew Euh, moo xam café lay tàngal wala meew wala musuk tàngal wala lu mu mën a doon wala sax mu joxe dara ngir barkeeloo ko ci loolu yaakaar naa am na solo tamit ci barab bi kon su ko defee niñ koy dundale nag dafa am ñuy jiite dundal gi di ko ànd ak mbooloo mi mooy njàng mi nga xam ne mooy mooy mooy njàng mi euh, mi koy laytaay ci programme gàmmu gi incha allah suñ julleegee ba noppi rek lay tàmbali am na kuréel bu ndaw boo xam ne mooy mooy mooy tàmbali eh, jàng su noppee ñu jox sëriñ Seex Gueye Mayib mu rajas ñu noppee sëriñ Bolle Mbay eh, bu benn waxtu jotee muy dëgg vingt-trois heures muy onze ci la ñuy tàmbali aw waxtaan woo xam ne eh, thème bi mooy day jëm ci wàllu saxaaba yi naka lañ doon jëflante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ Sam Bousso Abdourahmane moo koy moo koy def bu ñu demee ba minuit nag ci la njàng mi tàmbali xam nga ne dañuy teel a tàmbali njàng mi ngir bëgg euh, ñeenti ñeenti xas xasid barsan gii nga xam ne tamit euh, ñun dañuy mën a wax ne sëriñ bi sax moo tànn xasid ak barsan doon ko jànglu kon borom barsan xasidaam gi barkeel na ndax sëriñ moom lu mu tànn rek noonu la loolu noonu la kon ki koy jiite mooy sëriñ Ahmad Badi mu Cheikh Ahmadul Fadal mi nga xam ne moo jiite daa Rawdu Rayaahiin mooy njëkk a jàng su noppee jox sëriñ Afiya Buso imam mu jiite daayira Muqaddimatul Xidma mu jàng euh, su noppee nag sëriñ Abibullahi Jatara mu bay sëriñ Jatara moom mooy àggale guddi gi waaye ci biir loolu lépp nag ànd ko kuréelu daayira Muqaddimatul Xidma ak kuréelu Ilhamu Latiful Xabir bi nga xam ne ci biir daayira Muqaddimatul Xidma la rek ñu ànd njàng mi noonu soo defee ci biir loolu nag kon danañ soññee euh, ñu farlu bu baax a baax a baax ci kuy ñëw di indi ay ñam wala ay naan wala nga di ko séddale xam nga ne gàmm dañoo baaxoo def suñu ñëw dañuy ñëwee euh, famille maanaam da gis ñoo xam ne dañuy ñëw ak ànd ak seen njaboot gépp soxna yi ak gone yi waaye su boobaa nañ bàyyi xel rek moytu jaxasoo ba donte ñoo ànd waaye ñu fexe ba beronte tey ba bañ a neenal guddi gi ci ay waxtaan maanaam buñ bu mu doon loo xam ne dañuy ñëw ngir visite tourisme wala dara suñ fa indee ay ñam di ko séddale wala lu ñuy naan tamit ñu fexe ba. bu euh, buñ ko mënee jox kuréelu daayira Muxaddamatul Xidma yi nga xam ne ñu ngi fi sol ay silé foo leen gis soo leen joxee ñam wi ne leen dama bëgg ñu yóbbu ko ci fi ñu séddalee danañ ñëw sottil la ko séddale ko jox la sa ndab ko yóbbaale waaye su fekkee nag da ngaa ñëw teew jotaay boo xam ne da ngay séddalee sa bopp nga moytu ba bu fa tuurlu niin wala nga fay tuurlu saf suukar loo xam ne nit mën na cee loru tarxiis wala dara wala nga taqal barab bi su boobaa ni ma ko waxee léegi mën naa karajal jëf ji ngay jëf loolu kon mat naa mat naa moytu bu a baax ni ki noonu tamit képp koo xam ne taskatu xibaar nga wala ngay ñëw di jël te xam ngeen ni maanaam rafetaayu ni ñu gàmmoo ci Touba yéeme na lool lool xam ngeen ne fu la nit ñi di jóge léegi di ñëw di ko si dàkk ndax teewlu gi ak ruu ruu gi ni muy dunde ruu nit ki teew ni muy dunde ba tax na ku ko mos doo ko bàyyeeti am na ñuy dem ci dëkk yu bari yu jege Touba yoo xam ne dañuy fas yéene di fi àggale sa seen guddi am na ñu ci yeneen dëkk yi kon su boobaa képp kuy ñëw tamit ngir bëgg a jël nga ñëw ci direction bi ci MK wala dara dañ la jox lien wala ñu jox la loo xam ne da am image yu leer yu neutre yoo xam ne da nga ko mën a jàllale foo ko bëgg a jàllale ci àddina bi su fekkee da ngay laaj tamit wala ngay gëstu it nga ñëw ci e, waa daayira Rawdu Rayaahiin wala daayira Muxaddamatul ma dañ la boole koo xam ne dala leeral lañ la bëgg leeral loolu kon ci wàll ci wàllu googu kon daal matuwaay yi nga xam ne tamit moom la ñu war a jël ci organisation bi ci ci mboolem penc mi ak jumaa ji nos nañ kuréel yëpp moo xam ñi yor njàng mi di séddale jukki yi wala ñuy séddale café yi wala ñuy séddale bernde yi wala ñi nga xam ne ñooy jubbanti sàppe yi ak ñiy tàqale góor ñi jigéen ñi ci foo mën a jógee it danañ fexe ba jël matuwaay yi nga xam ne danañ fas yéene kenn ku nekk nga toog toogaay bu jekk jublu xibla di dindul guddi gi ca nam ware te doo am benn gàllankoor incha allah loolu moom jël nañ matuwaay yëpp kon daal su ma dee tënk jàpp naa ne euh, noonu nañ ko fas yéene ñu ngi ñaan ñëpp ñëw ci jàmm te sunu borom nangu jëf ji te jëf ji sell te luñ ciy defit dara yi ngi sell bañ cey dugg barkati xaadim rasul sunu borom it eh, defal ñu tawféex ak taysiir asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ok jërëjëf Cheikh Abdou am na solo lool ndax ni nga ko waxee rek mbooloo fu ñu daje moom day laaj ñu ñu saytu ko nos ko. Euh, bu ko defee li nga xam ne moo ci aju ci daayira bi ak ci rawdu rayaaxin mel na ne euh, la ca waroon def nañ ko kon li ci des mooy ñi nga xam ñoo ñëw di di ànd ak ñoom guddi gi ñoom tamit ñu bàyyi xel nos boobu bañ a def loo xam ne da koy da koy xajamal loolu solo la moo tax ñu ko ñëpp bàyyi xel kàddu gu mujj gi dañ koy delloo sëñ Mbàkke mu tàggatoo waale ko ci ab soññee boo xam ne xëy na ñàkkul mën na koo jëmale ci ñi nga xam ñooy teewlu ñooy ñëw di teewee si guddi gàmmu gi. moo xam dañ koy def fii Tuuba wala boo xam ne dañ ko bëgg a def defee beneen bërëb euh, ban ban ban melokaan wala yéen dénkaan nga leen di dénk yoo xam ne xëy na buñ ko defee dana tax lañ cay sàkku te nga leeraloon ko ci njëlbeen gi ci ngëneel li ci nekk ak yiw wi ci nekk ñu mën caa am lu kaw seen jot euh, sëñ bismillah xëy na dellu si waat rek ci wax ne mbir mi jaamu yàlla la màggal ku yàlla màggal hmm. màggal lu yàlla màggal yàlla màggal yéen bi sallallahu alayhi wa sallam moom màggal bis bi mu feeñoon loolu nag nit ki bu ci bëggee jariñu kon na ko ak sellal lal mu ci rax lu ci bokkul bu mu ci dugal lu ci bokkul bu ko defee rek mën naa mooy tax ndax ñitit di sonn ci mbir lu am jariñ lool te jariñu woo ca loolu ab jullit da ko war a moytu rawatina ab taalibe sunu mag ñu baax ñiit wanla alayhim sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu amoon yéene lool ci njaboot gi bëgg ñu jariñu ba fu njariñ nekk mu indi leen ko jox leen mu des nag kon jariñoo ko li ci jariñ nag ko nag mooy loolu mu wax léegi pasteef pas-pas bu mucc bu sell na la na na jiitu boo dëkkee it lim laaj ci ma ci dal ci teew ak teewlu nga bàyyi ko xel su ko defee booy dem mën a yóbbaale yóbbal boo xam ne mën na laa dimbali ba déwén ak jàmm waaw moo gën àndandoo mbooloo mi teew ba noppi jëriñoo fooyee mën naa am sax nga lor fi wala nga lor kon lépp luy tax nit ki di fi di fi loro wala mu fi lore mm. mu xam ne loola fii du barabam mm. bii de sit fiñ ñu defee mooy fi gën a tedd mooy néegub yàlla la mm-hmm. mooy barabu sëñ Tuubaa bi nga xam ne fi la dëkkoon mm-hmm. yàlla tere la ko mu doon jumaa ji gën a mag mm. ñu fi daje di fi màggal sangu sangam ba nga xam ne ni moo doon léppam mm-hmm. foofu ku fa tee war nga am yëg-yëg boobu fu ko defee fu ne it ci àdduna it nañ jàpp jàppal xel loolu ne yow bu dee taalibe fa nga nekk da nga nekkal sëriñ bi danaa wuutu sëriñ beeg ñooñam foofa kon bàyyi xel loolu lépp boo defee jataay ba di daal di mel ne kon dañ koy yéegal ci jataay bi loolu daal laay dénk sama bopp di ko dénk ñëpp xam daal guddi la goo xam ne euh, ku ko yemaleeg ko jiitu wala nga ko mujj xamoo dayoo kon kenn waru koo yemalee guddi gi ko jiitu waru su ko yemaleeg guddi ko ci topp ndax ndax kii feeñoon a tax te te te te te niñ ko waxee nag muy koo xam ne kuy jariñu ci moom ngay jariñoo moom la yàlla won nit ñi ne leen nii laa bëgg ngeen mel nii li mu leen sant mooy li ma santaane wa ma ateekum rasulu faxudu wa ma naheekum fan fantahu mm-hmm. kon su dikkee bu ñuy fàttali nit ñu loolu la ñuy fàttali mm-hmm. lan la ñu digg loolu la ñu tere mm-hmm. ngir ku dem ku ko xamoon gën koo xam ku xamutoon xam ko loolu rek la jërëjëf sëriñ bi euh, am na solo lool ci ab yóbbal boo xam ne kuy gàmmu si ku nekk wala kuy gàmm ak foo ko mën a gàmmoo nga bàyyi xel muy Pastef bi ak euh, sellal gi te sàmmoonteeg tamit defin wi bi nga xam ne moom lañ fi leeral bi ñu tàmbalee ba léegi kon ci kàddu yooyu ci la ñuy tënkee di santaat mbokk yi nga xam ñoo ñu doon teewlu ñëpp di ñaan suñu boroom yàlla mu yóbbu ñu ca bis ba ak jàmm ca guddi ak jàmm. ba ñu mën koo dundal li nga xam ne noonu lañ santaane ñu dundalee ko noonu te lépp lu cay yiw ñu làq ko lépp lu cay ngëneel tam ñu dajee ca ak moom te yàggu ko def te lépp nag nekk ci teewaayu sëriñ bi mooy Cheikh mun taxa ñu koy ñaanal suñu borom bu baax mu gën koo yàggal gën a yokk taxawaayam gën ko yokk ak wér ba naalam yëpp sotte ci loxoom te ñu ànd ko ak moom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والصلاح مع اندفاع النقم